légui nak ñu ñëw def suñ packaging ngeen suñ gift pack yi ñoko ko personalize lii nii dafa melni comme si wat bi rek di la ñoo joxe inshallah ñu am fi suñ pancake see ngi ni gis ngeen naka lañ ko defee as well handi suñ ndox yee ngi ni nga am suñ juice yee ngi ni dañ ci def ba def si fruits wow wow am suñ dates Assalamualaikum warahmatullahi wa rahmatullahi suma gaañ yi ya, ah yéen ñëpp maa ngi nuyu bu baax ziar man la waa seen xarit Home Cooking with Mari Bashir. ah mi ne ko comme naka laa ko de ak rek macha allah macha allah na fine ah yéen ya ñëpp seet naa ziar na len di leen laaj seen yaram ak seen jàmmi ah macha kon nu ko laa ko de ak rek di wah wax ne suma recipe yi ma am fii nii tey moom laa bëgg a séddoowaat ak ma am am honey bon honey bon maa ko ni pons la de anyway dal. lu tax yéen ma advice ma dem google suma recipe balaa ma ñëw balaa maa ñëw bi leen ko advice leen ma wax leen ma ne ko comment box bi wax leen ne Marie balaa ngaa ñëwaat fii di ñëw sa recipe yi demal nga utal ko tur wala nga xam naka nga ko naka nga ko nga ko ba fere wax leen ma ne bul mari. bu ñu sonal ak sa recipe yi tur leen ko wax leen ma waaye mu ngoog waaw bons fa mais comme bons rek laay defar si macha allah macha allah loo xam ne is very sweet as well neex na pour am anyway si weeri koor bi laa ko def waaye xaw ma ne ndax am upload ma ko upload dafaa nekk after weeri koor la laa ko upload ndax si biir weeri koor bi waaye si dum tombee rek dama ko def pour dok waaw waaye su fekkee tamit weeri koor bi passé na ma upload ko mun ngeen ko use pour snacks ndéewo wala tamit snacks daal kojomtu comme kojomtu rek macha allah soo gis ngeen maa ngi fi am suma furiñ fii nii flour gis ngeen 1.5 kg bi la maa ngi fi nii tamit suma am sugar sugar cane rifin bi brown sugar bi nga am ngi ni moom laa am ma am fii tamit suma butter moom is already lifin sax suñ condensed milk ñu am fii nii suñ yeast am suñ cheese waaw mu ne ko ne nag ingredients bii nii nag dama ko def ak ñaari syrup dama def sugar syrup be pare ma def tamit bo xamne bu dafa nek condensed milk dafa am nek two options suñ nga ñuko bëgga use ak condensed milk use ko ak condensed milk ñuko bëgga use ak sugar syrup bi use ko ak sugar syrup bi so legi ma ngi ni ma fi am suma naté kay té mom dama nata mom so bala ñoon nata taxara ma ngi dogon bu tanga waaw suñ yiss bi la bëgga pour ñu ndika yiss bi one packet bi la fa melni comme one tablespoon la dé nekk legi mom la leen ak fa aussi ñu def fa ñu def fa tamit sugar kon naa béy na sugar maanaam xaar mate cheese bi on si dafa am cheese inside ngeen cheese bi lañ am rectangular äh, cheese bi la mun ngaa am any brand moom lañ am cheese bi mooy nekk si biir bon si lu neex laa la indil tey lii daal xam ngeen lu xew suma néego bi moo ma ko may saay bu ko defaree ndeysaan daf ma de comme suy si dog di waaj jot rek daf ma dee si saa si daf ma dee oo ma dem ma jël waaye lii dafa neex neex boo xam ne mu ne xaaral ma ne ko lii dimbale ma naka nga ko defaree parce que lii dafa neex torop mu jox ma recipe bi moo tax leen ne man gis ngeen ne dama dee jàng si yéen tamit moom ma jox recipe bi tey mooy suma first time ma togg ko soo léegi nañ seet nag naka la moo demee su baaxee ñu xam ne salaam mooy suma first time su baaxut su baaxut ñu xam ne tamit ñu try next time rek <laughs> incha allah waaw I hope ne dina baax waaw parce que explainal na ma tamit gis naa tam naka la so you hope for the best right? waaye daal lu neex la soo léegi ñu def fii ndax bu tàng xool den bismillah ñu def ndox ndox bi sax maa bëri ndox bu tàng ak suukar la ñoo def ñu mix yeast bi da nga mix da ko mix ba nga ne ba mu bam seey it na seey xam nga yis daf dee mën a dànka soo danga koo def nii yëpp bam seey xam nga su ma ndox bi bari wut sax man waaye eh, anyway bii first time la garaawut su ma ko defaree tey soo next time su ma ko defaraat na gën a na gën a óggee soo yis bi soo ko defaree def ko nii moom moo sukur bi ba nga xam ne fu nekk seen moom danga koo tegee boor for about 20 minutes yo noonu while yang ngi mix a gum sunflower. waaw gars yi léegi gis ngeen gis ngeen fàtte naa sax yeneen ingrédients dafa war a am vanille eh, maa fi toj de vanille bii ngi nii ba pare dafa war a am nen waaw waaye nen bi dafa war a am sesame seeds tamit waaye man boobu optional la soo bëggee sesame seeds mun nga ko faa def waaye naa la wan kañ nga ko faa def waaye su ko bëggutee tamit xam nga xale yi moom mooy loolu ñoom. <laughs> ben xaaral def ko mu plain rek parce que moom plein la ma ko dee mayee waaye after daf mo xane ma mun naa ko see def waye man plein bi la mos mena haaral man ma def ko comme plein as well So, gis ngeen léegi ñu ñëw nak def suñ suñ bi ñëw nata dañu def bis mana tapi bi sa dangay waar natta bi legi bi dina harama nata bi ma def four cups of this wa def na comme que tay moy fausse de ma def ko harama def lu em mo gën wala fe ñu def lu reuy affaire bi rapa jox fi suma loxo legi <laughs> dama ñew use ma hand mixer bi mu ngi ni mom la use ba pare dama see def meew wa legi ma ñew nak am am lifin ko di ko def di mix dina len wan diko def ndanka par ndanka den after su ko defé dama won len nana nana si def so dama fay def tam sukur haral, comme ko def na fi xaar ma nata sukur benn sukur bi nii nag laa yooyu laa nekk di use ku nekk mun ngaa use any sugar of your choice waaye parce que moom ba mu ko doon def benn poti sukur waaye ma li bari wut fi waaye gooma ko de parce que moom basam suytoon na te neex de xaaral ma def rek garaawut <laughs> bu leen ma toppa de man bu leen ma toppa su fekkee daal bëgg leen sukur def leen si def leen lu ema ema em waaye <laughs> yooyu léegi xaaral ma mix nag dina am sax ren woor yi nga dafa am xaay ma leen ko waxee rek gëm leen ma sukkur bi dina am laa wax parce que xam nga soo paree yaa ngi faa war a def sa lifin soo bii dina baax du saf noonu noonu torop mhm. léegi nag mix naa sukkur bi nii léegi fu mu dama see ñëw def yis bi ma lifin ak lii bi nen bi duma ko fa def bota bi bi Ya, udah mau ke melt. Mm -hmm. Mixture bita mooy yëpp moom mixture bi noy na ba bugg a dee ta neex waaw waaw <laughs> waaye gis ngeen léegi fu mu nekk na xaaral ma bi dama si bugg a ñëw def lii bi yis bi bu ma ba pare mixta bi warta toy ba uppa da ko wara en rek warta luuri warta luuri ma da luuri lañ ko de oye xaw ma hayam léegi ma ngi ni am ci man dama defin ha ma ngi ni li ay use ma mixta bi léegi ba pare tamit da war wara am vanilla la xale yi de ñoo ma dee dañ naa ko vanille la ren meew waa gars yi gis ngeen fi laa mujjee after boo ko def ne foofu dama ko génnee tamit nit ko tuuti ak suma loxo yi nga suma loxo yi na mu ngi set wécc waaw soo gis ngeen dama ko teg nii rek pour geen ko nit nii ak suma loxo yi ba pare ma waxee yéen nii mu ngi am xet bu neex a neex a gis ngeen ba léegi maa ngi koo gën nit moo mu ngi gëli de tamaa ngi or te yàlla soo gis ngeen soo léegi mu ngi nooy gis ngeen ne mu ngi nooy gis ngeen soo léegi pare naa dama leen doon wan rek after ma ko génnee suma loxo bi waaw soo amee tamit lii <coughs> bi naka mixta bi mun nga ko def si mixta bi rek moo gën a moo gën a yomba dama ko ñëw na def si bool bi li ni le bàyyi ko mu rice for about one just one hour waaw gis ngeen léegi suma bool bi mu ngi niir xasaat naa ba set suma ma ni mu ngi ni so legui li ma def moy dama fa def a little bit of oil si bol bi parce que fi la ko def si side ci ni après nga brosse ko pour mu lal yep mu ñu all the way parce que ko mu lal and ay jak xam nga da nga bëgg affaire yi béeg xam naa ko dem soy gis video bi ni su ko defé nan man hello mari ma ne ko nam and ay jak lu xew su ko defé mu ne ma ne waaw lan la lan la wara a jëndati sax dimbale ma gaaw dimbale ma tass ma wujal nak de ma wax len dar and ay da jak koo xam ne xam naa ne nag gis ngeen léegi nak dama ko def fi rek clean film ko ante da bi sa yow la ko tuddee parce que béeg rek la mu nak machallah allah rabbi ma wujja bobu li moo béeg si mburu machallah dafa dafaa dima sen ma seen nag nag gu neex waaw sen <laughs> ma nak dima ñaawal nan ma Bachir Bachir tay fi la fa daan ni Bachir tay fi la fa ma mané ko loolu yow la neex <laughs> waaw mu go ko nii ak clean film yep then after that nga bàyyi ko ah, one hour pour mu rice one hour wala thirty minutes dafa des yow rek waaye man dama ko bàyyi ba one hour parce que dama bëgg a jot su ñoo waaj a ndogu si léegi gis ngeen maa ngi ne am fii suma cheese bi cheese bee ngi nii léegi cheese bi li ma koo def mooy dama koo dog into pieces li ma téye am lii la pour war leen li ma koo dogee dog naa cheese bi into cubes so gis ngeen nii léegi fu mu nekk nag dama may tuuti suma lifin bi am naka dugub bi mu rise up tuuti léegi ma bàyyi ko fa after an hour den ma ñëw ñu soog koo defar nag den su ma ko dugalee si oven bi den after ma soog a defar sugar syrup bi gis ngee nu mu gaawee very quick defar suñu sugar syrup bi nga rek dama ubalaa léegi toog daanaka jot na léegi ma def dama def am am lifin naka naka lañ ko def sax sugar dina ma faa def ndox one cup of sugar laa def ngeen affaire bu mu ngi cook so dang ko may ni bam nga gis ne mu then after then nga halam xalamé ni lu xalam ci rek dañ ko fay ko halam par e da suñ oh. bon si pare na waaw macha allah macha allah gis ngeen naka lañ ko defee ah mi ne ko ne ba pare ma recommend xam nga si am si starting bi maa ngi am naka lañ ko defee sax self raising waaye mun nga ñu use tamit plain flour as well will do soo amul self raising mun nga use plain flour as well so gis ngeen macha allah macha allah macha allah lii moom amul lu mu safee wut waaw. try leen ko mhm, su ko defee nag ngeen xam cafkak si nekk ah tey nag lii laa leen amaloon tey waaw lii mun naa nekk dessert mun na moo nekk ndéewoo mun na moo nekk whatever loo ko bugg a def tam di fresh tàng ba a dee hmm? kon mu kon leen wax ne nag dinaa leen gisaat si beneen vidéo ak si beneen recipe incha allah rabbi Música si biir cheese bi fii laa nekk